donc tey dañoo ñëw di def cérémonie de remise de diplôme dañuy revenir en arrière dañoo defoon benn formation pour des jeunes ci métier wu audiovisuel euh, montage vidéo ak euh, infographie ñu former leen euh, moo waral tey jii ñu ñuy ñëw fii formation bi nag dure na une semaine une semaine yoo xam ne ni doyul waa malgré def nañ ko mais doyul bëggoon nañ amaat yeneen jours yoo xam ne def nañ ko ki nga xamné moy monsieur le ministre Ismaël Madior mom moo ñu si accompagner ndax biñu démé toga mom dañ ko wax li nga xamné mom moom lañ bëgg pour le fisc d'abord une formation pour les jeunes ñi nga xamné képp ko xamné jeune nga nek ci métier muy montage vidéo wala euh, infographe nga mëna am dara lo xamné ni xam nga ko déjà bala ngay avancer ci métier bobu ndax il faut bo nit lo nek rek bu la si passion duggee passion bi mën na doon lo xamné da fay wéy mais après war nga mën a am benn compréhension que nii passion bi war nga ko ah, boole ak xam-xam ndax xam-xam boobu moo tax ngay mën a persévérer am ci yeneen euh, ba branche yoo xam ne da nga ci mën a dugg looloo taxoon ñu def initiative bi euh, def formation boobu pour d'abord permettre aux jeunes ñu am benn formation bi. ba pare mouvement bi dafa am yeneen activités yoo xam ne nii dañ koo war a def au niveau euh, de Rufisque léegi nak ñun suñu premier acte moy ñu def formation bu ñu formation ñu mëna jall ci yenen acte yo xamné ne dañ koy def bon am nañ plus de 35 élèves ou 36, je pense parce que euh, bo xolé amon nañ lu ëpp loolu sax mais vu temps bi ak ouverture des classes yi nga xamné ne jot na xew fan yi passé motax mënu ñu wona a dépasser limite boobu ndax dañu doon xalaat après ñu jël nombre bu bari mu am ben encombrement la ak Covid 19 bi voilà motax ñu xaw ko limité ba 35 cinq classes. Thank you.